وجنة لسالك مريد وجنة عاتق مريد bisimilah barke borom Tuubaa asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu mbokk yi ñu seetaan ci biir réew mi ak bitim réew yéen ñi eh, topp cellule bu communication bu Junatun liman nazamaho ñoo ngi am mbégte di leen nuyu di leen ziar di leen ndokkeel ñu ànd ak yéen liggéey bi boobaak léegi toll ci weer fii ñu taxaw nag nekk Poulailler nekk diggante Soura ak eh, Guédé ay lu mat ay bés ci ginnaaw bu ñu fi ñëwee xarkatam bi wute woon na lool ak ni nga xam ne nii noonu lañ ko fekkee fii suñ gannaaw ay jamono ci ginnaaw dafa feesoon dell ba daanaka tànk mënu faa dugg lu ñi nga xam ne ñoo di techniciens yi ci taxawaayu équipe technique yi nga xam ne nii ñu ngi fasantikoo ci junnatul liman nazamaho waaye ànd ko ak waa kër Serigne Darou Assane Ndiaye ñu taxaw taxawaay bu am solo ci ay matériel ci jaayante ak dogu ba fi mu ne nii bërëb bi ni ngeen ko seene nii ndox mi set na wecc ba fii ñu leen fekk sax ñu ngi démonter lenn ci matériel bi ngir mën koo toxal feneen foo xam ne ni meloon na noonu kon dinan ànd ak yéen ci melukaanu bërëb bi ginnaaw bi ñu defee liggéey bu am solo boobu dinañ ànd ak technicien yi nga xam ne ni taxawaay bi ñu ci taxaw am na solo waa kër sëñ Daaru Asan itam seenug jàmbaar ak seenug dogu seenug jaayante tax na bërëb bi mel nii askan wi itam ñoom ñi nga xam ne doon nañ dund lu metti gannaaw liggéey bi tey jii ban euh, sentiment la ñuy yëg loolu itam ci ànd ak yéen incha allahu rabbi وجنة عن هالك المريض ومرفعا لكل هاد مسلمين ومرفعا عن كل عاد مجرمين وحجة لمن بضعف ارتدى mel na ni eh, ay fan ci ginnaaw fii ni mel ak eh, nawoon wute na tey jii lan ngeen di yëg. tey jii moom ñi ngi yëg mbégte. ci liggéey bi macha allah di leen ñaanal di leen gërëm yàlla yokk leen. ba fu ngeen bëgg a yegg ngeen yegg fa ndax suñ xol sedd na ndax ñun yaakaaroon na ne ren jii fii moom xalaatuñ fee dëkk xalaatuñ fee dellu di fi dugg ngeen liggéey lépp ba mel nii kon dañ leen di sant di leen jaajëfal. boo ñu doon wax tuuti rek ci euh, fan yi ci ginnaaw li ngeen doon dund ak tey jii nett lañu tuuti rek euh, ci ginnaaw ndox mi ngeen ko doon dundee ak tey jii. waaw ni ñu ko doon dundee moom metti woon na ndax dañoo yoroon ay tuut tànk te ndox mi jaaxaloon nañ torop ñun suñ kër nga ne ñun xalaatuñ a génn ci buntu kër bi xalaat xalaat ñoo nekk fii mhm. fële lañ jógee gis nga suñ bagaasi nii gis nga yii yëpp daa yàqu mhm. waaw ñu yor ay xale yu ndaw xalaatuñoo génn fee fii lañ nekk ca bunt bu mag bële fële lañ daan génne ji waaw waaw liggéey bu am solo bi kon mel na ni xel dal na tey dal na tey waaw dégg nga li ma la wax rek ndax fii ñun xalaatu denoon nañ ren ji duñ fi dugg te tey ñu ngi nii raxas rek moo ci des macha allah ñu di leen ñaanal ngi lay ziyaare bu baax tur bi naka la daam Diop waaye daam fii mel na ni fan ya ca ginnaaw yéeme woon na lool waaye tey jii niñ ko fekkee wute na tey jii euh, lan ngay yëg ak yan kàddu ngay yëkkati jëmale ci jëf ju am solo ji. li ma ciy yëg daal mooy cant goo am commencé mais amul yemukaay te di leen sant te di leen gërëm te sëñ bi nga xam ne moo am pay yàlla na leen fay ndax amoon na ay jafe-jafe lool yoo xam ne defoon na ndox fii ba déwén du fi jóge waaye def ngeen ci Pastef def ngeen fi yéene def ngeen fi li ngeen a def lépp sant nañ bu baax a baax sant bu wér a wér waaw. kon daal tey mën nañ ne xel yi gën naa dal xol yi gën a sedd bu baax baax. bu baax a baax a baax ndax man mii tey jii laay dellu ci sama kër bu soobee yàlla seet na wecc depuis ba mu tawee ba ca suba sa laa génn ba mu tawee ba ca suba sa laa génn war naa man ñaar fukki fan bala ëpp na ko sax. kon mën nañu ne tey pomp nañ ko ba nga war a delluwaat. bu soobee yàlla ci laa bëgg fanaan nii incha allah roñ nañ bagaas yi ba delloo ko ci kër gi waaw sant bu wér a wér daal lañ def sunu xel sedd na guy yàlla nee na ngeen ko gën a man kàttan gi gën a yokk wér gi gën a yokk man-man gi gën a yokk taxawaay bi yàgg suñu kanam sant nañ bu baax a baax daal xol bee sedd guy ñu ngi lay ziar Baye tur bi naka la man maa ngi tudd Baye Ndiass Tanor Mbaye ñu may wax bàyyi Ndiass mbay ayu bés ci ginnaaw mel na ni fii naqari woon naa dugg lool ndax ndox mi tey jii neen ko fekkewaate mel na ni am nag soppeeku situation ba woon boobu tey bi ak tey jii lan nga yëg yan kàddu nga yëkkati fan ak nangam ci ginnaaw nga may wax fii nii la meloon fees dell ak ndox man sama kër man mii di wax ak yow fii la yemoon ci biir kër ga dafa fees dell ak ndox fii ñu nekk moom waxu mooy waxam mais biir kër ga dafa feesoon dell ba egg si fii yaakaar naa bis bi nga xamee ne waa kër sëñ Daaru Assane Ndiaye ñi ñëw nañ fi ñaara dugg ci biir man nag fu ne dem naa fa moom wax dëgg yàlla demoon naa préfecture demoon naa tubaa ca kanam ñëw naa aussi kër sañ Touba gu njëkk ga ñëw naa fee kër ga moom seet na raxas nañ ko ba mu set te biñ ca dikkee sëñ Mbaye Fallou moo ne ma sëñ bi jarul ngay sonnaat ndax dem nañ ay fan ñu indi fa benn moteur man may ngàcc ci moteur bi mu ne ma bàyyil ndox mii leen fi bëgg a jëlee léegi te buñ ko fi jëlee danañ génnewaat sa ndox moo génne na sama ndox génn seet na kër ga rafet seet na wecc la. kon daal ngàcc nañ ko raxas ko. raxas nañ ko ba mu set wecc. waaw ñoom li ma ciy yëkkati mooy sant Serigne tubaa sant leen bu baax a baax xam naa nag sëñ Touba la ñuy liggéeyal kon boo santee sëñ Touba leneen jarul wax sant naa bu baax a baax parce que wax dëgg yàlla la fa indi ndox mi jëlee na ko fi ndax yaakaar naa bi mu dikkee def ne ma soo sama ndigalul sëriñ ndax man boobu laa leen ma sa gis moo nenu kër gu fi nekk na ngeen fa dem su ngeen fa demee bu ngeen fa fekkee ci taalibe yi bu ngeen fekkee kër gu jegeek moom am ndox na ngeen fa dugg ca biir kër ga na ngeen dimbale ñooña loola nag defal nañ ma ko. Mbaye Diaw laa tudd. fan yi ci ginnaaw wala ñaar fukki fan ci ginnaaw ndox mi kéemaane woon na lool tey ji nag mel na ni xar kanam bi soppeeku na loo ñu mën a wax tey ji ci kàddu yi. di sant Serigne daaru Assane Ndiaye ako njabootam. at mu jot daanaka nii lañuy mel waaye kenn mësuñu fee fekk. waaye ren daal bi nga xamee ne ni jëwriñ ji ñuy wax sëñ Mbaye Fallou Ndiaye ñëw na fii nenu déeg déeg bii de nun mësuñ ko woon a gis waaye Pape Gueye mi nga xam ne mooy suñu mbokkum taalibe moom lañ doon wall si waaye fii de ba nu fay jógee ndox mi dana dañ nun nag suñ bagage yëpp yàqu na gis nga sama kër a nekk nii ci dikk xolo ndox mi ndox mi bu déparé ne man maa koy man maa koy baare waaw ñun daal sant nañ yàlla bu baax julli ci yonent bi sant Serigne Touba di sant waa kër Serigne Darou Assane Ndiaye bu baax a baax di leen ñaanal seen solo goo xam ne nii am nañ ko kuréel gi Serigne Mountakha taxaw ngir wallu ñi ñi mbënd mi eh, eh, lor waaw loolu it ñoo ngi leen di jaajëfal taxawaay bi rafet na trop trop ndax ñaar fukki fan a ngi ni yoo xam daanaka guddee ak bëccëg noppalu wuñ seexlu wuñ suñ foncier yëpp manqal nañu yëpp ndox mi set na wecc moom daal xanaa ay defaraat daal ak it lii nag ñu dimbali ñu ci ba bu yàlla dogalatee nawet am mu fekkee mën naa bañ a am moo gën ndax nun jaayante nag sëñ Touba gedd suñ euh, dëkki maam ñëw fii te dootuñ ko dootuñ fa dellu kon ku nu mën a dimbali ba lii saafaraw ba ñu mën fee nekk di jaamu yàlla ak sunu njaboot moo nu gënal. Baye ñu bi naka la. fii dafa mel ni ñaar fukki fan ci ginnaaw ndox mi bëri woon na waaye taxawaay bi nga xam ne Junatun def na ko ànd ak waa kër Serigne Darou Assane tey jii mel na ni xel yi dalaat na yan kàddu nga yëkkati. Euh, gannaaw yàlla sant yàlla rek di julli yonent bi sant Sëñ Tuubaa bu baax a baax ndax euh, am na suñu benn mbokk bi bu nekkoon Dakar ñoo wax suñu Abdou Gueye mu saadix ci waaye njaayeen yi la bokkoon dafa wax ne. def lu baax li muy baax baax mi ngi gën a baax fa koy koo ko soxlaa ndax kenn ku ne xam ne ndox moom kenn dëkk mënu dëkk ak moom ndax man ñaar fukki fan a ngi lu war jage weer génn naa sama kër ma ak sama njaboot am feneen fu ñu nekk man mii kese assis mbàkki gii foofu lañ ma jox nii sama soxna foofu la nekk sama doom moom lay ne tëddal foofu comme que lay ma njaboot gi tasaaroo na li li may njëkk wax mooy daayira njaayeen bi daa bëgg ngeen bind ci sama tur loolu moom yitte jooju am naa ko ndax gis naa ne seenum liggéey ndax am na ñoo xam ne si fii la ñu fanaan maanaam jëf ji moom jëf mënu ko gën a rëy ndax ni ma ko waxee woon rek dañu noo fekk fi nu ko yitte woo ñu defal na ko fi kon de lii na ñaan yàlla sa borom barke seenum liggéey liggéey bii doon liggéey ngeen dajeeg ngeen ngërëme sëñ Tuubaa ci am nañ ci yaakaar ndax noo ngi suñu néeg di nelaw yéen ngi ci biir ndox mi. mbokk yi ni leen ko waxee woon rek xam ngeen ne liggéey bu am solo bi tey bu ñu demee ba am résultat bu am bii euh, mel na ni équipe technique yi nga xam ne ni dañoo bàyyi ko woon junatun li ma nazamaho ñëw fii ànd ak waa kër sëriñ Darou Assane ñoo def liggéey bu am solo ba tey jii askan wi dana ko seede bàyyi Alla Niang bokk ci ñoom ak mboolem équipe bi nga xam ne ñu ngi fare ci kër Serigne Darou Assane fasantikoo ci ay taalibe tey fii euh, bi ñu fi ñëw ca fan yële ak tey jii mel na ni wute na. Euh, kon tey bu ñu bëggoon a xam effort yi nga xam ne ni tey dajale ngeen ko fournir ko ba am résultat bi la ñuy tënkalaat ci situation bi. di sant yàlla bu baax a baax noonu nga ko waxee bërëb bi yaakaar naa ni keroog bi xew-xew bi amee ak tey tey la ci weer mu mel ni euh, boobaak léegi ci ndigalul sëriñ bi waaye ci ak gungeem ak yéeneem benn taalibe bu xam lan mooy ndigal bu xam bu bu bu mën a gàttandu li sëñ bi doon junj lu mu doon toogoo. noppaluwoo maanaam euh, guddi bëccëg waxtu wu ci ne rek yaa ngi ci waar yi wala di xalaat lu nga xam ni ndigalul sëriñ boobee da nga ko mën a gàttandu njaboot gii ñu bokkal nag jataay bii di waa kër sëriñ Darou Assane Ndiaye te ñenn ci cheikh euh, sëriñ Touba yi euh, seenub taxawaay fii maanaam mënuñu ko nattale wala di ko xayma ci pësteef waaye lépp dañu koy delloo rek ci baaxuk Cheikhul Khadim bi nga xam ne sang yu moo doon ànd ak ñoom ci daara ji euh, mu mel ni loola la kuréel nga xam ne mooy junnatun li ma nazama wu xam xam taxawaay yu mel noonu xam ni Serigne Touba bu masaana junj yu mel noonu cheikh yi ñoo ko daan gàttandu ca yéeneem joojee waaye ñoom ñi loolu la ñuy def cheikh Mamadul Muntaxa ba tax na junnatun li ma nazama wu keroog ca guddi ba ñu àndee nga xam ne dañoo jóge fii waaxul seen bopp ñëw ba ca kër ga wax seen yéene ci maanaam ndox mi ni mu mel ci dëkk bi bëgg cee bay seenu laaj ñoo ànd ak ñun ci guddi gi muy comité commission technique bi won ñu barab yu mel nii bii bokk na ci wànde de na yeneen yu baree bari yu nga xam ni ndax daaru njaay lañ leen njëkk a fekk ca pénc ma ca daaru xudóos ñu liggéey fa liggéey bu nga xam ni keroog ba mu tawee loola moom dañ ko tàmbali bi yàlla ji ubbeeb taw rek muy ci nawet bi ci la ñu tàmbali woon liggéey boobu ba keroog xew-xew bii amee la ñu dikk ba ca kër ga junj seen yéene wànde nag bëgg caa doxal doxalin bu nga xam ne ni ñu ko waxee woon mooy bu ñu wax dara ne lii mënee su ko wala mënee su ko xalaat ñoom pas-pas ba nekkoon ci seen waajur yi te nañu àndewu Serigne Touba loola la ñu jël teg daal di ne kaay la ñu dem xëy na fu gën a metti fu gën a dëgër fu ne nañ ñu bàyyi ñun ñu féete foofa bàyyi leen yéen ngeen dox ci yeneen gox yi lu ngeen ci mën a gungeen gi waaye ñun li ñu soxla rek ci lu nga xam ne ay machine la wala lu ñu gunge ci liggéey bii nañ leen ko waajal ba tax na kuréelu junnatu liman ci ndigalul kilifa ya la ñu leen njëkk indil benn moto pompe bu nga xam ni moto pompe turque la bu mag a mag a mag bu nga xam ni 300 mètres cubes lay dégager ñu indil leen conduite ya lu tollu ci un kilomètre indil leen ko tegal leen ko ñoo ko tàllal seen bopp ñoo ko connecté waaye ba ñu installé machine bi ba léegi ba ñu ko taalee ñoom ñoo fiy yendu ñoo fiy fanaan bi ñu demee ba gis ni ñu ñëwaat ànd fi ak kilifa yëpp gis ni liggéey bi mën naa mën naa yéex ndax ndox mi bari na bari gu nga xam ni yeggoon na ci nit ku dugg ci biir sama kalaas gi bàyyi mbay mii nga xam ni moo doon dem ci ndox mi ndox mi da ko daan egg ci baat te daan dem ba taxaw ndax bu continuer woon xay na dana ko mëdd kon loola mel ne dayum ndox mi kenn mënu ko woon a quantifier ñi nga xam ne ay am na ñuy xalaate ki xam-xam ci palant do nu mu nekkee c'est-à-dire xamoon nañu li fi nekk ci ndox neexul a xayma ba tax na bi ñu waatee beneen ndimmal wala boog beneen taxawaay ba ñu ko waxee amuñu ci lu ñuy xaar Amadou Samba ngi nii dañoo daal diligenté def bon de commande yi wax ko kilifa yi mu ne daal di leen jël fekk na avant loolu Serigne Diouf si ñëw na fi ñu àndaat moom ñëw xool liggéey bi ak ni kon dafa mel ni bu ñu junjee loolu ñu xam ne bu ñu ñu bëgg danañ ko def ci lañ leen di jox beneen moto pompe bu nga xam ni mooy bi nga moom la waa waa waa Sarr joxe woon moom tamit indi ay conduite yu nga xam ni dañu ko jëlee suñu bokki taalibe yi nga xam ni fu fàggandiku nañu ko woon ci liggéey bi indi leen ko loola it ñoo ci nekk guddi cëg ba installé ko bàyyi ñaati ñaari moto pompe yi ñuy dox boobaak léegi yaakaar naa ni ndox mi meloon fii tey ñu mën a waaxu ñun fi ndox mi nekkoon ci digg-digg bi yekk ci moto yi wante jëm yi nekk fii yëpp muy ay daara di ay dëkkuwaay nga xam ni kenn kenn ku fi desoon ci kër amul waaye bërki démb bi ñu àndee ñëw ba ci kër gëla ngay séen ca penku ba ndeysaan ba ñu ñëwee fekk fa borom nga xam ni ba yàlla ji tawee la fa génne woon keroog mu dikk di raxas laa wax Amadou mii ne ko lii de dal na xel ba ñu demee ba ñu def compte rendu ci ngoon gi junj nañ ko fe foofu am nañu fa taw feex ndax ña génnoon kër yi gis nañ leen tey jii maanaam ñu nekk ci di seetal seen kër yi mu mel ni la ñu xayma woon booba dama ne woon bu ñu fi defaatee 24 heures 48 heures wóor na ma la fa des dana jeex te loola mooy tey jii yaakaar naa ni bërki démb lañ fi ñëwoon tey jii gis nañu ne la ma waxoon dara dañu ji tey résultat bi mel na ni feeñ na ci xarkana mi population bi wane nañ seen mbégte waaye mel na ni am na yeneen gox yoo xam na nii mel nañu ni fii ay ayu bés ci ginnaaw logistique baa ngi fii foofee dafa mel ni intervention bi kon day wéy. day wéy ndax euh, résultat bi ñu am fii moom la ñu sàkkoo am fépp ndax sëriñ bi noonu la ko bëggee am na béréb yeneen yu nga xam ni euh, xëy na njëkkoon nañoo mel nii waaye booba ndox moom sax tulul woon nii kon dañuy jàpp ni. fépp fu nga xam ne ndox nekk na fa donte moo ëpp mii jàpp nañu pas-pas yu mel nii bu ñu ko amee ñu gunge ñu li sëriñ bi bëgg danañu ko am ya nga xam ne tolluwuñu foofu wàlle gis nañu fa ay ndox di yenn gox-goxaan yi dañuy continuer liggéey bi ànd ak jëmm mel nii ndax liggéey moom euh, sëriñ bi wax na li mu wax ñun comité bi daf ñoo tànn ñu nekk foofa di xalaat rek wante li koy doxal mooy jëmm yu mel nii ne ci terrain bi ne ci euh, ci gox-goxaan yi maanaam fexe ba gunge si ndax fanaan ci ndox yendu ci fee boo fa ñëwee mbooloo mu ko am ñu ci mën a taxaw 24 heures sur 24 amul ñoom ñi fi dëkk def seen relais ñoom rek ko man kon ñii moom lu ñu leen ñaanal doyul. sëñ maam daam ñu ngi ziare dafa mel ni ni ko euh, Baye Allah waxee léegi rek acte bi nga xam ne nii tey nemmeeku nañ ko ci njabootuk Serigne Darou Assane junj la joxoñ la waaye engagement la yeesal pas-pas bi seen maam àndoon ak Serigne Touba Cheikhul taxawaay bi ànd ak junnatu tey ji feeñ na ba population bi seede ko yan kàddu ngeen ci yëkkati. ndigal li nga xam ne moo ñu fi indi ndax. sëriñ Abdou Khadim mi nga xam ne mooy xalifa sëñ Darou Hassane moo jox ndigal ak njabootam nu wàcce ci biir njaboot gi ngir jafe-jafe yi nga xam ne ñoo nekk ci biir njaboot gi ñu fas yéene leen cee génne loola nag xëy na cible bi mooy fu njaboot gi nekk waaye bu demee fu njaboot gi nekk nag lu fa nekk dañ koy laawaale loolu mooy cible bi ndax nit ki buy jóg mënut a ñàkk am ci joxañ bu mu jógee waaye suñ dikkee nag luñ fi fekk dañ koy yóbbaale loolu mooy sababu su ma jumu tey jii bi ñu fi ñëwee ak léegi tey jii la fukki fan ak juróom-benn yaakaar naa loolu nag suñ borom ñëw na akub dogalam ñaari yoon muy taw na fi te lu muy taw taw taxut nu war koo bàyyi ndax ndigal lañu jàppaloo woon ndigal loolu bàyyeeguñ buñ buñ buñ ngaccoon tamit ba mu des ak toq te war koo yeggale bu ndigal ñëwee bu buñ koy bàyyi dañ koy bàyyi kon ndigal nu fi indi. ndigal bay bay baylooguñu kon loolu mooy pas-pas bi nga xam ne moo fi nekk loolu nag du du fii lañ njëkk a tàmbali muy Daaru Xuddoos ak Ngiraaneen ak feneen ak feneen waaye jàpp nañ ne ndigal li ñu jot te kilifa yi nga xam ne ñoom la sëriñ bi ja euh, teg ci sunu kanam nu war noo gide fan jëm mel na ne gide am na ay joxañ yu ñu tegtal ne foofu la ñu war a dem kon mel na ne ndigal li wàccikut ba léegi ndax keroog bi ñu bi nga xamee ne moom la ñu wàcc fii Euh, ginnaaw bi jëwriñu àndee ak yéen ñëw seetsi ko bañ agsi fii di natt ak a teg ay récolte am na ci biir ci nja ci biir koñ bi ñoo xam ne jàppoon nañ ne sax maanaam dañ leen koy defalee te booba nun nun nu fi tàbbi xam nañ li ñu fi indi te xam ne ne wallaay lansim suufus kese moo ñu fi bàyyi moom moom lañ fi bàyyi waat waaye duñ fi bàyyi am ndox kon gëm-gëm googu moo moo fi am loolu nag ñoom dañ ko ànd ak ñun mooy euh, seenu ñaq seeni dërëm seen lépp moo xam ndax bu boo fi ñëwoon bëccëg da ngay jàpp ne ñoom dafa mel ne euh, gëmewul ñii fi ñëw kon am na leneen lu nekkaat ci ñoom ndax ndax pas-pas bi nu am ñun ba di ba di ko ngecc pas-pas boobu la ñu am ba di jàppale ñu koy ngecc kon loolu lu lu lu mat a sant la. li ma jot ci samay kilifa ci information ñu séq ko ak waa euh, euh, comité bi mel na ne lépp lu ñu séq ak comité bi ñoom def nañ ko ndax man. ci terrain bi laa nekk xawma li nekk ci ci Kër Sëñ Touba xaw ma li nekk feneen waaye li ñu jox ci information moom mooy mel na ne te te loolu li ñu ko mën a firndeel mooy waxtu wu ne ñu gis leen fi waxtu wu ne ñu ñu gis ne gis nañ leen fi démb gis nañ leen fi tey gis tey jii gis nañ leen fi ñaari yoon bi ñu doog a xëy gis ñëwaat ngeen fi kon euh, te mel na ne euh, surtout am na ci aw tur wu ñuy faral di gis sax xëy na du du du du jar ñu koy tudd waaye mel na ne daal ñi fiy ñëw kaddu yi ñu wax ak yi ñuy waxanteeg waa kër sëñ Darou Assane mel na ne saa buñ leen waxee ne danañ leen jox nangam hmm. danañ leen jox nangam fii moom bi ñu fi ñëw wax dëgg yàlla euh, am na ci ñoo xamante ne si wax boo leen fi indi woon ci waxtu yu ñu fi ñëwee moom bu boobaa dañuy daal di dellu gannaaw waaye nag ñun ñi ngi fi ñëwee ci pas-pas ginnaaw bi ndigalu sëriñ bi jàllee ci pas-pas boo xamante ne si yàlla rek a tax ak sëriñ bi loolu la ñu fi ñëwee moo tax it gis nga liggéey bi nii ku fi ñëwoon ci jamono yi jamono yi ci gannaaw tuuti ñëwaat fi nii da nga xam ne wax dëgg yàlla liggéey bi liggéey bu am solo la liggéey bi nag ñii ñoo ko jiite woon Mbay mi ak euh, Seydina Ousmane <coughs> ak sëñ Maam Daam mi nga xam ne moom moo doon wax léegi ñoom ñoo jiite woon liggéey bi newoon ci biir euh, comité bi ànd kook ñoom wax dëgg yàlla kon daal ñu ngi sant bu baax a baax. jërë ngeen jëf mbokk yi comme ni ngeen ko seetaanee rek fii ñu nekk niñ leen ko waxee woon léegi. la ëpp ñetti ayu bés ci ginnaaw ndox mi fii ñu taxaw sañu ñu feenoo taxaw ngir ndox mi ni mu daal di euh, kowee kàddu yi bàyyeekoo ci techniciens yi bàyyeekoo ci askan wi waaye bàyyeekoo ci waa kër Serigne Darou Assane firndeel na ko ngeen euh, dégg itam askan wi nga xam ne ñoo fi féete woon ñenn ñi jóge woon seen i kër dem feneen tey jii euh, amaat nañu mbégte fas yéene dellu ci seen kër gannaaw liggéey bu remarquable boo xam ne nii. techniciens yi féete ci junnatun ànd nañ ko ak waa kër sëriñ Darou Assane waa kër sëriñ Darou Assane Ndiaye itam nekk ñoo xam ne nii tey jii lii ñu def nii firnde la fay fii njabootuk sëriñ Darou Assane bëri nañ fi buñ paree itam Guédé lañ war a dem kon ab junj la ab joxoñ la waaye ab soñña la ci mboole mbokki taalibe yi ci engagement bi nga xam ne nii njabootuk sëriñ Darou Assane def na ko tey jii ànd ko ak junnatu waaye bërëb bi niñ leen ko waxee am na yeneen i yu bëree bëri ci ay yu fasantikoo ci Touba mën nañ ci tudd Ngiraaneen Kër Ñang yoonu daaru nii la mel bu soobee yàlla taxawaay bi nga xam ne ni noonu la euh, équipe technique yi am noonu lañ ko fas yéene defee ca foofee bépp matuwaay bu fa bu ko war rek danañ ko def ba ndox mi mën a jógee ci dëkk bu tedd bi di tubaa ci fàttali nekk ab liggéey boo xam ne nii junnatun li man nazamaho kuréel gi Cheikh Mouhamadul Mountakha taxawal ñuy saytu lépp loo xam ne nii dafa jëm ci mbënd mi seen équipe technique gàcce ngalaama kon ñu leen di jox dox daje beneen bërëb jërë ngeen jëf. wa